إذ ناديته بيا ولي أيا سمني لو هند جاء ولي jaa ngeen jëf mbokk internet yi bàyyi xel Info 7 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk di baalu ak ñëpp di baal ak ñëpp di ñaan yàlla defal ñu ñu teewe koy ati atan ah, kenn bañ a manqué mbokk yi kawteef lu yéeme moo xew dëkk boobu li nga xam ni mooy diwaanu Bambay ci benn dëkk bu ñuy wax Bari Ndol Ndol foofu nag lu yéeme moo fa am tey jële ci bisub ah, tabaski gi imaam bi li nga xam ne mooy sëriñ Mame Balla Mbacké jóge woon ci Daaru Salaam ci diwaanu Touba demoon fa file ngir eh, daal di li nga xam ne mooy ñaari rakkaa yooyu le nga xam ne at mu jot moo koy taxawee ci dëkk boobu bi la nga xam ne mooy baar yi ndol ndol eh, tey jile nag bi ñu taxawalee ñaari rakkaa yi ci la benn waay daal comme kooku ngeen di seen ci daal di naawee ca àll ba rek ñëw fas yéenee likkite imaam bile waaye nag suñu boroom def na ci sutura jot na ko jam paaka bi ndax paaka boobu bile dafa lemu waaye yàlla def na ci sutura ba eh, jam-jam ya taxul mu demee noona suñu borom def na ci tawfeex mooy Daaru Salaam nga xam ni fi la jóge woon Info 7 TV ñu ngi leen koy toppal incha bëgg nañ dem ci imam bi waxtaan ak moom ba xam lan moo sabab mbir moom mi le en tout cas daal lu ci mën di xew ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gimaan imam bi ginnaaw bi ñu séenee daal waa ji euh, riñaan ci lañ daal di koy song bloqué ko ba paaka bi nam ko bëggoon a jame xëy na demewut noonu waaye lu ci man di xew ku gis image yi comme ni ngeen koy séenee nii moom paaka bi dafa mujj lemu mu yéeme ma nga xew ca foofule ca diwaanu Bambey ca dëkk boobu bi la nga xam ne mooy Bari Ndol Ndol 7 TV incha allah dinañ ci ñëwaat gën ko yaatal suñu borom nag bari na sutura yàlla na yàlla yokk sutura imam bi la wali iblisa isnataytuhu biya wali wali